dañu dañoo ñëwoon seet si chantier bi chantier euh li ñuy wax cité universitaire Amadou makhtar Mbow mais fofu dama balaa ma avancé dama war wax euh que projet bi projet lo bu nga xamné ne dafa dañoo jëloon ne dañ Sénégal da doon organiser les Jeux olympiques de la jeunesse Jeux olympiques xalé yi ci aduna bi yépp lool nak bokoy organiser dafa am ay jumtukaay ak ay infrastructures yu nga xamné ne da nga ko war am gouvernement du Sénégal si le jëloon ne fii ci Diamniadio dañ fiy tabax ben cité olympique cité olympique bi après gouvernement bi jël ko jox ko étudiant wu université Amadou Mahtar Mbow boo ci booba la ñu dem ba ci avec Covid bi CIO ak gouvernement du Sénégal déggoo ci ne dañuy changer date bi donc mënoon nañu ne dañuy xaaraat mais gouvernement le président de la République Macky Sall moo ne bu ñu xaar nañu continuer tabax. Euh, cité cité olympique bi def ko cité universitaire pour après mu nekkaat cité olympique loolu lu am importance la tey chantier bi fi ñu nekk nii juróom-ñaari bâtiment la yu nga xam ne bu ñu leen ko université yi euh, étudiants université yi juróomi junni ci ay étudiants mën nañ ci dëkk mu décider ko def ko fii ci euh, pour jox Sénégal matuwaay bi nga xam ne dina ko jox kàttanu lépp lu ñuy wax ne mun nañ ko organiser ci benn réew mu nga xam ne day dajale ay nit ñu bëri surtout ci lu jëm ci sport parce que gis nga événement sportif yi lu bëri day dajale ay nit ñu bëri tey gouvernement du Sénégal euh, président Macky Sall ak gouvernement teg nañ fi li nga xam ne dina tax Sénégal dugg ci pays africains yi nga xam ne mën nañ ko te fekk ne duñ ko jëggaani mbaa duñ ci tax sonn loolu loolu laa bëgg donc tey dañuy ñëw seet projet bi fu mu toll ndax dañoo bëgg mu ubbi mu pare fii ak 31 décembre 2021 fii ak at bi jeex loolu nag ay engagement yu bari la bu njëkk ba avril vingt la lañu waroon pare pour jëm ci Jeux yi mais léegi président nee na nañ ko gën a baral chantier bi euh, gis nañ ne gros œuvre yi li ñuy wax gros œuvre euh, def nañ ko ci 90 pour cent 10 pour cent yi des jàpp nañ ne fii ak weer wi de dinañ ko sottil te même fii ak weer wi dee sax jàpp nañ ne li wax finition dinañ ko commencé hein ci yenn bërëb yi am na sax yuñ ci commencé tax gis nga ay faux plafond yu def parce que liggéey bi ci tester xol nan lañ koy defee gis ngeen ni mu amee parce que boo visité chantier bi gis nga ne li ñuy def fi lepp dañ koy xalaat bala ñu koy def tester ko xol ni muy def lolou tamit ma ci sante entreprise des DSC parce que euh ñun ak ñom amna ñu ben and nañu ci ay projet bama ma directeur du cours ak fi ak léegi mais gis na ne ñoom délai du sen problème respect qualité bi du sen problème lu lay wax dañ koy def ci délai donc ma leen di sante di leen gërëm d'ailleurs projet bi dinañ am na extension ci ben avenant bu ñuy tirer bu nga xamné dañuy yok pour respecter norme norme olympique yi euh, ñu defaraat yenen 2000 euh, lits pour les étudiants mais yoyu bobu mom duñ ko paré lu dul pour bu ñuy jëm ci Jeux olympiques yi